dal li nag jàmm mbokku internet yi ñu ñëwaat ak yéen ci mbirum Ndingler ab waay su bokk xëy na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sang karangeeg suufu Babacar Ngom si dafa yëkkati ab pistolet jubale ko ñi xamante ne nii ay député la ñëwoon fa ngir xool si suuf si nga xamante ne nii moom la ñu jox ki nga xam ne mooy Babacar Ngom coow laa yokkoo ci lu jëm ci suuf si nga xamante ne nii moom moo dox ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Babacar ngoom ak béykatu Ndingler ya gilee xëccoo ak jàmmarloo gu dox ci wàllu suuf si juratina coow démb ci dimanche bi ab waay su yoree ab fetel la moom moo ko jubalee ay député di leen menacé ginnaaw si nga xamante ne ñoom député yooyu ñëwoon nañu foofu ci suuf sa ngir nemmeeku mbir ma nan la demee xool ci suuf si l'état bu Sénégal jox ki nga xamante moom mooy Babacar Ngom bu Sedima ñoom député yi am nañu dëgg dëgg leen bët naka la teg seen tànk ca bërëb ba similaak saa la ñu tàllal leen ab fetel député bii di Abdoul Aziz Diop Mor Talla Kane Mame Diarra Fam yi wàcc nañ seeni woto ab waay jege si ba toll ak ñoom génne ab fetal daal di leen koy tiimale di leen menacer samam xel nag dem na ci allumez ne bougez plus les mains en l'air nañu ko daan foowee ca ba ñuy xaleel bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñoom ñi ko fekkee waa ji yore woon fetel bi daf na leen dem leen seen yoon ndax suuf si suufu jàmbur la amul leen benn sañ-sañ di fi teg seen tànk way takk der bi nga naayoo ab fetel dal di leen dàq ci saas député ya nag donte mer nanu ba ci wax ju bari dañoo faatoo fëgg seeni tànk génn ca tool yooyu nga xamante ne daanaka ñàkk nañu ko ba pare teg fay takki der ngeen ñu sàmm kaaraange ga li de mooy bul laal bul jege ngir bañ mbir ma ëppi loxo ñoom député yi nga xamante ne jàpp nañ ne waa ji daf leen a agressé verbalement ca terrain 225 hectares yu Babacar Ngom ginnaaw bañ fa ñëwee ay loxoy neen ngir rek amal ab seetlu député bii di Abdoul Aziz Diop ak ñamu àndal wax nañu ne daañu déposé ab plainte ca brigade bu gendarmerie bu Mbour jërë ngeen jëf parce que c'est c'est pas normal. Pape eh, moom eh, eh. dem ba rek fi jóg. wuy ma vous me vous rangez votre arme s'il vous plaît. non vous rangez ma ne vous rangez <laughs> votre arme s'il des armes sur des députés. non non non des armes sur des députés. qui te leur identité pour te dire que nous sommes daa defe woon bu génnee arme bi nit ñi daw.